soxna si yow yarluwaan nga woon hmm. nga am dund ci yu méttee metti hmm. ñu seet si woon la pour nga wax ñu lan nga ci dund yow li ma dund ci yarluwaan li ma dund ci yarluwaan hmm. dafa metti te damay toog di ko xalaat di jooy. Mm-hmm. man sama jabaru papa moo ma yar. sa jabaru papa. moo ma yar. sa pap ñaareel ba wala. de sama yaay moo nekkoon première bi. waaw am ay ñeenti bant ñu divorcé mu jël keneen ñu may ko mbokkam. Mm-hmm. mais kooku lu ma wonul da koo fàtte. yow kon bu sa yaay demee da laa bàyyi ca ñun ñëpp parce que sama papa daf kenn du téye ay doomam. Mm-hmm. mu kon a dem. sama yaay moo dem. yéen ñeent ngeen des ñun ñeent ñu des ca kër ga. ok waaye Ndoye Bane waxuma école privée yi ñi ñu bokkal papa doon jàngee. Mhm. waxuma oto bi leen doon yóbbu. Mhm. loolu koñ ba yëpp mën nañ ko seede. Mhm. mais sama jabaru papa baxal na kaani ba mu ñor. di ko toj sama daal yi lan mu lan nga defoon. Eh, yëfi xale rek. parce que man tamit eh, duma mën naa nekkoon ca kër ga. comprendre nga yëfi xale xamatuma parce que chaque jour man am naa lu ñu ma war a corriger. baxal kaani ba mu ñor. kaani wallahi ak waxtu bi barke yonent bi mhm. di ko toj suma daal mhm. sama jabaru papa bu bu tëddaan temps yooyu néegi rajo yi am lal yi moo xewoon mhm. su tëddaan da daan déglu con sec con sec rek la bëggoon léegi mère bi pour mu nelaw man maa koy xoosal bopp bi di ko ko tojal di ko bi léegi nag ci la doon teg ay way léegi nag man way yooyu daf may soxorloo moo tax su may dégg musique coon rétro daf may yóbbu fu bari comprendre léeg nag damay mer fippo Mm-hmm. naan du ma di way quoi mbindeef gënuma yaay di way fippu léegi nag sant yàlla mm-hmm. waaw sant yàlla bu baax mm-hmm. mais lu nekk def nañ ñu ko lan nga dund ci kër ga ci la ma la ma fa dund metti na waxuma kaani ga de waxuma ñun sam alal jam amoon ba ñëpp di ñëw di ko ran waxuma loolu de mais ñun école publique yu bon yi lañ doon jàngee suñu doomu baay yëpp di jàngee ci école privée catholique yi ak oto bi musuñ ci dugg man sa école ubbee muus laa daan jàngee Mm-hmm. affaire yu wu xale yi sama doomu bàyyi amoon nañu ay monopole yi amoon nañ vélo ñun boo duggee ci kër gi fi jànq yi daan nekk ñun fa lañ daan nekk tuuri ñamu mbaam man maa ko doon def ci kër ga mm-hmm. waaw mais moom yéen yéen ak seen doomu bàyyi yéen a daan bokk foo leen di fanaan déedéet ñun ci biti lañ ñu daan génne néeg yi ci biti maire bi ak ay doomam ak ay rakkam fa ci biir mm-hmm. après bu ñu waxee sama maam ne baax na samay sëti nañ leen génne ci biti sama maam nag bokk na ci li ñu jàppale sa maam bi jur sa papa. bi jur sama yaay. bi jur sa yaay. waaw bu góor beeg bu jigéen bi. Mhm. buñ daan jàngi moo ñuy jox paas sama maam bu jigéen. fan la nekkoon. mi ngi ci dëkk bi. moom fan la nekkoon ba leen daan jox paas. sore wu ñu woon. Mhm. dañ daan dem mu jox ñu paas. Mhm. kër gi ñu am na maire bu fa dëkk sama rakk bi ci tukki. bu xëyaan maire boobu moo ko doon jox kopp mu dem jàngi. da doon doxee kër ga ba école ba. ba tu ba école Mathurin Diop. tey alhamdulilah. daf leen daan dóor wala. daf ñu daan def loo xam ne. paa bi da ko doon gis ñemewu ci wax. Mhm. te du xam. kon paa bi xam na. xam na mais du wax ñun man bi may génne sama kër papa Ndoye Bane maa ngi am 13 ans. loo def. parce que dama ko wax parce que dama sës. Mhm. ma ne maire bi mook benn suñu bàjjenu chinois yi xam nga dëkk bi dafa Ndakaar dafa ay bàjjenu yaa ma neex. ak ay bàjjenu chinois. waaw ay bàjjenu chinois. Mhm. bàjjenu chinois mooy lan moom. mooy bàjjen yu yomb yi rek bàjjen yi ngay for rek ci dëkk bi. Mhm. du bokk ak sa papa dara. Mhm. mais nga for leen ci dëkk bi. ñu nekk ñoo gën a baax. waaw déedéet. Mhm. ñëw bàjjenoo la par force. dafa moom suñ benn bàjjen bu nekk ca koñ la bàjjenu chinois yi maire bi ñëw. taxaw ca bopp koñ ba ñoom ñaar ñii gungeen dama taxaw man tam ca bopp koñ ba jëngu. ne maire bi gise ngeen gise ba jële fi sama yaay gise gise ba jële ma fi yéen ñaar waaye maa ngi leen di xaar. wallaahi loolu lañ ma génnee. comprendre nga sama premier salaire bi ma njëkk a fayeeku mhm. parce dama sëyoon am jëkkër ñëwaat ci kër gi mhm. sama premier salaire bi ma njëkk a fayeeku mhm. dama yëkkati vingt mille jox sama papa sama papa ne ma comme yaa ngi liggéey mën nga yor sa bopp demal uti foo dëkk wallaahi génn na àdduna maa ngi fii tey te dinaa ko fekki am na lu dox sama diggante ak suma papa muy suma jabaru papa man ak moom ak suma waajur bu góor. Mm-hmm. fii laa la ko waxee xaw ma kañ la yàlla na yéex dama koy fekki ñëpp a koy ñëpp a dem alaaxira mm-hmm. mais am na benn compte boo xam ne man sama papa ak suma jabaru papa dinañ ko lijjanti foofu. Mm-hmm. dafa am compte. ñun ñett. foofu lañ koy lijjantee. parce que doo jël sa doomu wujj baxal kaani ba mu ñor di ko toj ci ay taatam. loolu rek la la mosal est-ce que. ci ci loolu dañ ko daan def xale yi pour que ñu moytu góor ñi. non man aw problème góor. man dama naqari woon dara ñun suñu temps affaire góor amul woon. ñun baalu kër moo amoon sama taawu papa bi moom moo doon moo doon organiser baal ci kër gi moom la paa bi doon jot xaalis moo yoroon oto bi moo defoon lépp ba bi mu amee bac dañ ko fayal mu dem jàngi Maroc. sama sœur bi nekk fii moo tax sama sœur bi mu amee oto sama maam bu jigéen ne oto bañ leen doon aaye moo nekk nii tey. gis nga Ndoye Bane booy lebal lebalal xale du fàtte. gis nga booy lebal. joxal lebalal xale du fàtte mag sax boo ko defee lu bon mën na fàtte mais xale du fàtte. ma dundaat leneen loo xam ne ci biir kër gi ñun dañu doon gënatle ba ñëpp di ko gis. Mhm. koñ bi yëpp di ko gis. Mhm. mais comme paa bi yàlla defaloon na ko xéewal amoon na alal lool macha allah. Mhm. maire bi tamit amoon ay cogg ci ginnaaw. ay cogg ay cogg waaw. ba ci chauffeur yi chauffeur bu farak ñun ñu génne la. gardien bu farak ñun doo fa yàgg booy bu farak ñun ci kër ga doo fa yàgg. buy bu farak ñun doo fa yàgg tey jii nag problème bi mooy paa bi génn na àdduna lam ñu doon def. loolu lañu loolu lañ leen tëyal ba tey ci miraas bi mu am problème ñaari at mënuñu miraas paa bi. ndax la ma leen waxoon keroog ca miraas bi. Mhm. loolu jeex na 30 ans yéen a ñu terrorisé fi mu toll yi nag léppay leer. mère mhm. boobu sa wujju yaay bi ñaata doom la am. am na fa huit. huit juróomi góor ak ñetti jigéen. yéen ngeen doon ñeent. ñun ñu doon ñeent. Mhm. te terewul. paa bi amaat na yeneen mais ba tey paa bi kooku la gëmoon ba ñëpp xam ne moom la ba gëm moom la bëgg ndaw si ndaw si waaw moom mooy doon seytaaneem daal waaw mooy doon seytaaneem voilà léegi léegi seen sa sœur ya ñu doo sa doomu wujju ma sa tante boobu ñoom naka ngeen daan dundee bi ngeen nekkee mag nag léegi bi ñu nekkee mag du dox du dox mhm. parce que mère bi mhm. dama mën sama benn sœur boo xam ne moom dafa demoon ragaloon ba dem kolewu ci meer bi bañ koy wax ne ko da nga seytaane fekk dafa ragaloon kooku bu génnaan di jàngi comme li ngeen di wax dañ daan tëj buntu kër bu ñëwee paa bi ne dafa dafa farantu ci mhm. te da doon jàngi boobu mu ngi def bàkk mhm. amul ku ko jàngal léegi diggante bi doxul ku ne yaa ngi toog ci sa ruq mhm. yaa ak sa frère yooyu ak sa sœur yi amu aw ma amuñu cee kenn affaire ku nekk yaa ngi toog ci sa ruq di gérer sa bopp ku nekk yaa ngi toog est-ce que xamu leen woon euh, fiir ci seen papa seen yaay leen fa nekkatul seen papa takku keneen est du affaire wu jalousie. xam nga sama papa bi muy takku kooku. Mhm. boobu sama taawu yaay ki ci topp ak taawu kooku ñoo maase. Mhm. donc nekk nañ fa ñoom ñett ba sama yaay amaat fa ñetti doom. Mhm. comprendre nga xawuñu ci fiir ñu ne demoon ba topp leen di leen booyu di leen dungu. ñun dañ leen ñun ñëpp suñu yaay nekkul dañ leen doon booyu di leen dungu. yéen leen di defal waaw. mère bi bu ëmbaan man maay dem jëndali ko mburu sans sel. mburu ba amul xorom. Mhm. chaque fajar may dem jëndali ko ko mu ndekki. Mhm. ñamu mbaam man maay gàddu ñamu mbaam bi par guddi dem ci këru benn njaago dem tuuri ko. Mhm. chaque guddi kër ga am ay jàng am ay booy am ay gardien. maire bi am ay am rakkam ñaari rakkam yoo xam ne ñoom dañu faroon ci ñëwee ñun lañ doon bañ a gis. nee naa la bu ñu daan jàngi muus laa daan yor ñoom oto moo leen doon yóbbu ba yóbbu kër gi ñu dendal ci collège yu baax yi nekk fii Dakar. favoriser leen ñun ñu ñu ci yu pon yi. waaw kan moo gën a arrivé kan moo gën a teg tekki tey xam nga dafa am baat bu olof di wax mm-hmm. que barke bu ko bàyyi doon joxe mm-hmm. kon doo ki mu gën a nëb yaayam la koy jox man gëwuma barke bàyyi mm-hmm. barke bu ko sa pap bàyyi doon joxe kon ki mu gën a nëb yaayam doom yooyu lay jox barke bi liggéeyu ndey añu doom man gëmuma ko kon xanaa yaay Barack Obama moo gën a moo gën a liggéey suñu yaay yi affaire bi du foofu ñun alhamdulilah ñun ku nekk macha allah yàlla defal na la sutura teg nga ci yoon bi du mais tay jii ka gën a bon ci doomi paa bi meer booboo ko jur yàlla day àtte sa maam nee na na ñëpp gudd fan man loolu lay tenir ñëpp gudd fan bul ñaanal kenn dee parce que kenn bu ci manqué rek du fekkee na ñëpp gudd fan bu ñëpp guddee fan dina am ñu fekkee mais booy lebal lebalal xale du fàtte mais mais mais maire boobu kañ ko gëj a gis maire bi nga xam ne moo leen yàgg maire bi tànk dëgg amul jugéen du ñëw li ma naan yàlla bu ma ko gis. bu dëj amee. dina ñëw te maire bi Ndoye Bane dafa mën a jouer théâtre. dafa mën a jouer théâtre. yàlla dafa mën a jouer théâtre mën na lay won loo xam ne nekkul ci moom bu nit ñi toogee muy def jeu boo xam ne bu nit ñi demee tey nga dee. bu nit ñi demee. tey nga dee. mais sa yaay xamoon na ni loolu ngeen di dund ca kër gi. sama yaay xamoon na ko parce que dañu daan génne bu ñu demee sama kër maam sama papa ñëw ak ay xaritam jël suñu. Mm-hmm. sama papa boo waxee mu ne ay doomam kenn du leen yor mm-hmm. soo waxee mu ne sama maam téye nga say doom bàyyi ma téye samay doom mm-hmm. tey suñu maam boobu ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm te xiñ